salaamaaleykum yéen waa sunu 24 euh, man Anna bu Siri Mars maa ngi leen di nuyu donc tey nag c'était un réel plaisir ma ñëw fi tey fi nga xamante ni mooy Teranga Movies Awards ah, nga xam ni bii mooy euh, deuxième euh, kii bi nu mu koy waxatee deuxième anne bi ñu koy def donc mu nekk mbégte torop ma ñëw fi fekk fi samay moroom acteurs yi ñu ñëw dalal ma xam nga ñu saafonte suñu biir ak yooyu donc juste pour dire que mbégte laa fi am sincèrement parce que bi ma gisee ni que gars yi nañ ça m'a fait vraiment plaisir donc je me suis dit que leen souhaiter yal ñu yàgg koo fetaat yu bare bari mais aussi di ñaan aussi ñun tam l'année prochaine pourquoi pas ñu gagner prix bi donc euh, merci beaucoup. alors merci je pense qu'elle tire euh, à sa fin la saison 2. Euh, mi ngi ci jeexantal bi donc xam naa dañuy xaar rek pour saison 3 bi incha allah ñu mën leen wax yeneen surprise yu ñu leen di indil jaajëf. Oui, en vérité, euh, Samira Koulibaly, je dirais que sa a disparu, sincèrement, euh, parce que faut tourner Anna, la New York, Anna, Anna. Donc, je di que euh, l'oliep euh, prix boobu loolu l'oliep dama koy sargalé ki nga xamantene moy Ibou Gueye, mom mi créé personnage ba ñun ñëpp ñu dem bay bay ba may wowe Anna, donc euh, moom laa koy jaglel et dire que vraiment merci aux Sénégalais parce que ñoom ñoo gëm le métier bi ñuy def, liguey bi ñuy def ba assister ñu jappalé ñu. Donc, ma leen di remercier bu baaxa baax. waaw inspectrice bi tey dafa ñëwoon ci Teranga Movies Awards bi xam nga war a def ndaanaan comme euh, tenue traditionnelle la ñu woote mu def nii rek pour yéen <laughs> merci beaucoup. waaw Fatou Jupiter tout d'abord dama koy remercier parce que c'est une femme battante comme li ñuy wax euh, ci ci àdduna bi euh, jigéen la am na fula am na jom e man tey bi ma ñëwee fii c'était ma première fois vraiment gis naa ni que jàmbaar la et toute l'équipe qui est derrière elle aussi. maa ngi koy remercier bu baax a baax di ko wax ni tamit na jàpp et que euh, yeneen année yi di ñëw mooy daq incha allah moom moom en tout cas jàmbaar la c'est la première fois tey aussi ma koy gis mais dama koy wax na jàpp bu baax a baax parce que euh, jàmbaar la vraiment voilà.